علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki internet yi ñi nga di seytaan Ahmadiyya TV ci diwan bu ak li ko wër ci àdduna bi eh, téléspectateur ak téléspectatrice ñi nga xam ne ñoom ñuy suivre jamono seen xarit seen bokk euh, monsieur Badji man maa ñëwaat encore si beneen numéro d' émission euh, di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di leen delloo seen wàccuwaay di leen wax ni ba toujours ñu ñooy ñëwaat encore si tànk yee askan bi si wàllu suñu alimentation bi yee askan bi ñu mun a xam fu ñu war a teg seen tànk waaye tamit yee askan bi pour ñu mun a xam toll nañ si jamono bi nga xam ne faju dafa jafe. di nga yor sa xaalis waaye pour faju dafay jafe ndax euh, naxaatey bëri na lool si wàllu lekk yi ñuy lekk mais aussi naxaatey bëri na lool si wàllu faju bu ñuy faju bu bëgg faju naka noonu moo tax suñu émission bi toujours euh, dañ koy amal pour dimbale askan bi si wàllu suñu lekk yi ñuy lekk ñu xam mun a xam fa la ñuy teg suñu tànk donc daleen wax ni saa su nekk boo leen suivre suñu émission bi na ngeen di euh, valider ngeen aimé wala ngeen abone saa su ne bu ko defee ngeen mun a am dimanche bu nekk Euh, lundi bu nag ngeen mun a recevoir li nga xam ne mooy suñu benn euh, épisode li nga xam bi nga xam ne buy waxtaan si wàllu alimentation si wàllu nutrithérapie nutrithérapie mooy lan faju si lekk bi ngay lekk bi nga wér nga am sa wér gi yaram donc mu nekk lu jafe nag parce que ñu ngi si jamono bi nga xam ne ñu ñuy wax OGM organique génétiquement modifié mais aussi produits chimiques yi nga xam ne ñu si gars bi ñu si boole si wàllu bay bu ñu bay Euh, mu nekk mbir bi nga xam ne bu yéeme jaxasoo na ba nit ñu bëri xamatuñu fa la ñuy teg suñu seen tànk si wàllu lekk boobu donc euh, naka noonu moo tax tey incha allah ñu bëgg a waxtaan tey euh, mooy ce qu'on appelle processus de la maladie mooy yoon bi nga xam ne bi doomu aadama di àbb pour dem lu ñuy naan feebar feebar mooy lan feebar nag buñ koy wax mooy jagadi sa yaram dafa jagadi wala sa yaram dafa sutante comme ni ñu koy waxee wala sibiru la ñuy wax sibiru mu am virus bi nga xam mu am bi nga xam ne infection si benn virus euh, bu dee euh, comment di palu euh, bu ñu naan anophèle femelle yoo bi nga xam ne bu la mattee mu jëlee feebar bi ki nga xam ne dafa feebar ñu daal di ko sa yaram feebar bi ñoo lay ñëwee si li nga xam mooy si wàllu paludisme wala di koy naan sibiru su ma su naka noonu feebar boobu nag bëri na ay feebar yi nga xam ne ñuy jot te ñun ñoo ko créer ñun ñoo ko euh, ñun ñoo ko euh, comment dirais favoriser ba mu ñëw dugg suñu biir yaram ndax feebar mooy lan il faut ñoo ñu xam lan mooy feebar feebar si biir yaram doomu aadama lay tàmbali feebar ñun ko ñoo koy créé si lekk bi ngay lekk feebar foofu lay jógee wala si naan bi ngay naan feebar foofu lay jógee wala si li ngay nooy feebar foofu lay jógee wala si li ngay xalaat feebar foofu lay jógee en tout cas feebar lu koy joxe dafa bëri façon feebar li lu koy joxe dafa bëri façon donc fay feebar boobu nag dafay am fu muy tàmbali fu muy tàmbali mooy fan feebar fu muy tàmbali mooy si li ngay lekk lay tàmbali si li ngay nooyi foofu lay tàmbali wala si li ngay xalaat foofu lay tàmbali loolu yëpp bokk na li tey li tax nit am ni nit dem ba feebar ba yaram boobu yàqu yàqu bi nga xam ne bu jégg dayoo ba cëri bi yàqu ñu war ko opérer pour mu dindi li nga xam ne mooy yàqu wala ba ya ba am dem ba am pathologie yi nga xam ne pour ñu defaraat ko dafay jafe kon nag loolu fan lay jógee si lekk lay jógee feebar nag hmm, boo ko déggee mooy yow sa système biochimique il est lu le système immunitaire système immunitaire nak, ki nga le ne moo fondement ŋànk système immunitaire c'est la cellule et le microbiote microbiote c'est bactéries yi nga y a des nekk qui biir yaram doomu Nous ñu koy auparavant flore intestinale microbiote ak cellule, yi ñoom ñooy ñoom le système immunitaire mooy fondement système immunitaire le système immunitaire si s'il n'est pas résistant bu sa système immunitaire bi dëgërul dafa faible dafa lof dafa bëri acide toké bu ñu naan acidité ci biir système immunitaire bobu nak boba nak yaa ngi favoriser la maladie ya xamal ni yaa ngi gas yoon yaa ngi defar yaa ngi yaa ngi defar yoon bu lay yóbbu feebar parce que acidité bu demee ba sout ndox bu ñuy naan alcalinité bi wara dundal sa cëri bi wara dundal cellule bi wara a dundal euh, euh, comment des bactéries ndox boobu du boo demee ba nga manqué ko sa biir yaram nga daal di gis ni yow li gën a bëri sa biir yaram mooy lu ñu naan acidité lu ñu naan tooke acide boo bu bëri si biir yaram rek acide bu bëree si biir yaram rek tooke bu bëree si biir yaram si système immunitaire xamal ni yow di nga feebar xamal ni yow yaa ngi préparé yoonu feebar te acide boobu fa lay jóge acide boobu fan lay jógee si lekk lay jógee lekk bu ñu naan lekk bu dee moom mooy indi acide bi nga ñuy ba ñuy gis ni kon nak lek, dafa am ñaari façon lek lek bu dundu ak lek bu lek lek bu lek moy lek bi nga xamné boko lekke dafa lay ferñent dafa am ferñent bu muy siwir yaram wir yaram ci bir yaram doomu aadama jeexintaan dafay bàyyi ferñent te ferñent bobu nak mom moy tax yow nga mëna am énergie nga mëna am courant bi tax nga mun fonctionner waye lek démé ba nga lek lek bi nga xamné amu benn ferñent amu benn vitamine amu benn oxygène amu benn numéro muy magnésium potassium mu ameew dara yow yaram bi lekk boobu nag lan lay bàyyi acide lay bàyyi acide boobu nag mooy favoriser boobaa nag bépp euh, li nga xam ne mooy virus bu jógee si biti dugg si sa yaram daf koy yaatalal daf koy favoriser daf koy may doole pour virus bi mun a mun a am doole pour yàq sa cër yi virus sida virus Ebola virus corona virus yi nga xam ne ñu ngi doon dégg ay virus façon façon bu nekk la gale ainsi ah virus yooyu yëpp bu xasee ba dugg si yaram doomu aadama bu ñu nee développé si milieu milieu bi nga xam ne dafa bëri oxygène dafa bëri oxygène dafa bëri alcalinité ndox bu am oxygène milieu boobu bu duggee rek rek dañuy da dañuy si ni virus bi dafay dee parce que le système immunitaire bi dafa dëgg dafa résistant léegi nag bu dee sa milieu bi dafa bëri acide. dafa bëri ndox bu am tooke bi nga xam ne si lekk bon bi nga daan lekk moom la jógee wala si li nga xam ne li nga doon nooy ndox oxygène bi nga doon nooy oxygène bu bon la nga doon nooy du bu baax nga doon nooy wala si sa xalaat yi nga doon xalaat mu daal di yéene cortisol cortisol bi daal di déployer énergie bu bëri énergie bu mu doon déployer ba pare du am lu koy remplacer mu daal di bàyyi énergie bu énergie boobu nag mu daal di fàtt cellules yi ñu def seen liggéey

pathologie dafa am li nga xam lu yakku ci cër bobu li nga xam lu an lu normalu ci cër bobu légui nak li nga xam ne normalu ci cër bobu li nga xam dafa yakku ci cër bobu wala cër bi dafa manqué énergie dafa manqué oxygène moy war a nga santi muy metti ok lu tax muy metti c'est parce que le central du système nerveux a reçu le message bu jotee message bi rek forcé di nga sentir muy metti mais bu jotee message do sentir metti c'est parce que bu jotee message c'est parce que lepp mu ngi jaar yoon lepp bu jaara yoon da fay japp ni yaram bi yépp tout tout se passe bien moo tax sentir wu métti moo tax ñoom bu ñu buggee faj bu daal bu ñu buggee opérer nit dañuy fàtt li nga xam moy tax central bi am contrôle ci li nga xam moy jaar ci yaram doom adam léegi bu amul contrôle boobu da fay japp ni fu yaram bi yépp amul ben problème motax yow da nga lay xoti duñ ko yëg boo yëg dara c'est parce que le message bi egul fu mu war egg message bi eggu fu mu war a egg léegi nag comme moom dafa jàpp ni cerveau bi central du système nerveux dafa jàpp ni tout est ok si biir yaram doomu aadama alors que am na fi nga xam ne doxul moo tax doo sentir métit cër boo demee ba nga sentiroo sa cër boobu nag nga ñëppati ko kenn yëgu ko c'est parce que cellule bi dafa dagg connexion bi dafa perdre carrément di cër boobu ak central du système nerveux amatul connexion bu amatul connexion foofu deret bi nekkul di daw waaye fépp nga xam ne dafa am deret muy daw normal oxygène bi daw normal foofu cerveau bi dina di mooy contrôler lépp luy dox côté boobu bi yi fa nekk aussi dafay jokkoo direct léegi cellules yi nga xam ne mooy jokkoo bu moom moom ñoom ñoom mënatuñ def seen liggéey da ngay du daal du jàll mooy sax mooy war a ngay sentir muy metti hmm? léegi nag connexion bu demee ba jàllul carrément foofu dafa dee. mais bu demee ba nga metti xamal ni jot na message parce que foofu ça ne va pas léegi moom dafay jéem a trouver solution moo tax ngay sentir muy metti cër boobu léegi nag dans la ci nutrithérapeutique moom mu nekk santé bi nga xam ne dafa yor la solution pour régler jàngoro doomu aadamay yi tey jàngoro yu bëri yi nga xam ne nit ñi dañoo am jafe-jafe pour saafara jàngoro boobu jàngoro yooyu nag surtout lu ñu naan ndox siti ndox ndoxiti boobu nag fan lay jógee ndox bi nga xam ne bu am tooke bu bari sa yaram fan lay jógee mooy lekk bi nga xam ne lekk bu dee lekk bu dee bu ñuy lekk moo dem ba ñu jox ba mu jox lu ñuy naan ndox siti moo tax boo demee hôpital am nañu jafe-jafe pour faj boobu ay calmants la ñu lay jox am na ay sëriñ nga xam ne ñu koy faj mais dafay ñëwaat parce que xamuñu ba tey lekk bi nga xam ne boobu nga war a lekk yow miy fajoo ndox siti léegi nag acidose boobu nag lu ñuy naan siti si wolof bobu nak mo indi jafé jafé parce que ndox bobu waru nek ci bir yaram doom adam mais nak ndox bobu nak bu démé ba commencé am ci bir yaram doom adam dafa am li yalla bindu lu ñu naan système tampon système tampon nak mooy neutraliser moy nak ndox bobu acidité bobu nak bu mu bañ pour mu bañ la lor mais da fay am système tampon da fay am fu muy fu muy toll bu mënati am capacité de neutralisation de cette acidité problème problème bi nga xamné ñu ngi koy jindu bëss bu nek ci ci nga xamné ci wër gu yaram doom adam loolu moy fièvre légui nak systématiquement scientifiquement dans la santé nutrithérapeutique ñep nangu nañu ni cër bi nga xam buy metti cër bo gis muy metti rek xamani ni cër boobu dafa manquer oxygène manqué oxygène li mu manqué oxygène moo tax la du système nerveux mu ngi jéem a trouver solution nan lay euh, euh, nan lay ravitailler oxygène cër bobu moo tax waral ñu santi muy metti donc xamal yow vous êtes en baisse d'oxygène oxygène de quatre vingt pour cër bi di metti manqué bi nga manqué oxygène moo tax cër bi di métti cër bu métti rek xamal ni cër boobu dafa bëri acide dafa bëri acidité dafa bëri ndox bu am tooke bu ñu naan ndox siti moo bëri si cër boobu moo tax muy métti c' parce que ndox parce que deret bi mënul circuler normal pour mu ravitailler cër boobu léegi nag acidité bi jël na place bi jël na place oxygène bi bu jëlee place oxygène moo waral muy sant mu métti parce que kii jot na message bi bu jotee message bi dafay jéem a trouver solution moo waral ngay sant muy métti. Le mooy est du dara lu dul yaram système immunitaire miné d'acidité un système immunitaire miné d'acidité euh, est égal à la maladie le mal a dit feebar bi dafay wane boppam dafay prononcé wu feebar bu demee bu tollee ba xamal feebar bi dafay prononcé wu dafay boppam xamal yow fi nga système immunitaire il est dans des difficultés systématiquement le système biochimique ne pas ravitailler comme il faut systématiquement dafa manqué oxygène xamal ni aussi légui nak solution bi moy lan moy baissé wacce acidité bi nga dal di yegal li nga xane moy alcalinité bi moy ndox bu nga xam dafa am oxygène kon nak motax tax feebar mu ngi non li moy feebar motax tax nak nit ku nek war nga ko mën a sa yaram nga ba tey ba yo do feebar waaye nak ñun dañuy agresser suñu yaram yaram du machine yaram nekul weñ dafa am fu muy sës bés bu nekk yaa ngi koy agressé cër bu nekk yaa ngi koy agressé bés bu nekk nga agressé sa foie bi agressé sa poumon yi bi agressé yow bu nekk agressé sa sa poumon yi si li ngay nooyi agressé sa ki nga xam ne sa xol bi si li ngay naan agressé li nga xam ne mooy sa sa estomac bi si li ngay lekk agressé sa li nga xam ne mooy sa cër si li ngay lekk lépp mu yaa ngi koy agressé léegi agressé boobu bu demee ba cër yi sës dafay loof dafay lot dafay lompoñ amatul dara léegi sëriñ yi nga xam ñoom ñooy defar saa yoo nelawee ñoom ñu ngi defar di raxas ñu ngi defar di raxas te yow nekkoo di leen lu ñu soxla bu yàggee sa biir yaram la ñuy tibb li nga xam lu ñu soxla pour defar parce que yow nekkoo di leen rabitaay yow boo ko rabitaayee moom day tibb soo si biir yaram bi di defar bu dee synovil bu dee cartilage la ñu soxla dañoo soxla magnésium ñu dem si cartilage bi xëcc togg dañoo soxla synovie euh, comment dirais-je euh, potassium ñu dem si la synovie ndox bi nga xam ne moo tax ñu mën a am articulation xëcc togg dañoo soxla calcium ñu dem si yax yi xëcc togg dañoo soxla si lépp soxla si muscle yi xëcc yow da dem ba yow doo desati dara sa réservoir dafay dem ba jeex tàkk sa potentiel énergétique dem ba wàcc carrément cinquante millivolts wala carré wala ba trente ba boobaa yow doo mënati dara sa yaram sa biir yaram léegi nag lan mooy xew commencé installé wu feebar di installé wu feebar wu feebar bi installé ba dem ba gagné cër yu bëri gagné système immunitaire bi bu gagné ne système immunitaire lan mooy xew yow dugg nga si li nga xam ne mooy si li nga xam ne moo lay daaneel moo lay yóbbu si dee kon nag feebar fi may sama waxtaan bi si feebar feebar loo ce qu'on processus de la maladie feebar dama koy misaale comme dëkk dëkk bi mooy yaram doomu aadama léegi nag dëkk boobu nag dafa am ñi nga xam ñoom ñoo chargé si walu sécurité de boobu ak ñi nga xam ne ñooy chargé si wàllu éner hygiène mu set sell ak ñi nga xam ne ñooy si euh, la justice pour lépp lépp jaar yoon la police et la gendarmerie ah mais mu am ñi nga xam ne si secours moi dimbale moi les sapeurs pompiers

Militaires, ñooy militaire Nous nous ñaan militaire yooyu nous ñom ñoy ñi nga xamné ñom li systématiquement les globules blancs hmm? les globules blancs ñoy militaires yi sécurité au niveau de la frontière mais nga sécurité globules blancs yi nga xam sécurité les bi yaram yaram

kër bi amul ku koy aar ku koy ku koy visite bu koy siki ba pare nga teg kër bi visite bi nga xam ne bu lekk doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan mu ngi xiif ba pare joxoo ko paaka joxoo ko pistolet joxoo dara nga ne ko yow sécurité sama kër bi léegi nag agresseur bu ñëwee ñoom yor seen arme lekk ba suur pompe ba am doole yor seen fetal ak seen paaka ñëw fekk agresseur kii bi visite bi dóor ko mu daanu ñu dugg si kër bi jël sa war sëk yëpp sa jël sa alal yëpp nekk si biir bi kan moo ko def yow mi tabax kër bi yow yaa def indi loolu faute bi yëpp yow la kon nag militaire yi ñoom ñi nga xam ne mooy góobi blanc il faut nga dimbali leen may leen doole jox leen énergie jox leen dox bu am ferñeent lekk bu am ferñeent bu ko defee lépp luy dugg lu bokk si yaram bi li nga xam ne mën na la doomu aadama ñoom ñu faagal ko faagal ko léegi nag militaire bi bu ñu demee ba agresseur bi dem na ba mun am ëpp leen doole repousser militaire ba militaire yi commencé dugg si biir kër bi si dëkk ay ay ay jumtukaay yu fe yu xereñ dañuy woo policiers yi ak gendarme bi bu ñu woowee policiers ak gendarme bi policiers ak bi ñëw dinañ jàppale loolu mooy les cellules et les bactéries dañuy ñëw jàppale globule blanc globule blanc léegi ne bu ñu ñëwee ñoom tamit amuñu doole ci agresseur yi dugg rek agresseur yi dugg rek bu ñettee si biir globule blanc xeex bi nag xeex bi mu ngi am rek depuis si frontière yi xeex bi mu ngi am nit ñu ngi dee mala yi ñu ngi dee lu bëri lu bëri mu ngi yàqu si biir si si si dëkk bi. léegi nag euh, sapeur pompier mooy mooy globule rouge sapeur pompier nag moom dafay wër di dimbale day wër di dimbale moom mu ngi wër mënul mënul satisfaire tout le monde parce que ñi dee dafa bëri noonu la mel si yaram doomu aadama sapeur pompier di globule rouge dafay dem ba moom da desati dara si yu mu mën a dimbale organes yi parce que organes dem ba loofu carrément dem ba yow li ñuy naan comment dirais-je lu ñuy naan cellule ay bactéries dem ba mënatul dara def liggéey bi lan moo xew agresseur bi na si biir kër bi mooy si biir yaram bi placé wona mu commencé développer mu commencé développer parce que salté bi nga xam ne moom la biir yaram acide bobu mo koy may doole muy développer muy développer muy développer ba den ba gagné terrain bi c'est fini yow mënatoo dara kon nak li moy fièvre suma koy misaal tey bu dee dégg ngeen man sama wax fièvre ni lay démé ci dom aadama nank nank lay duggee si li ngay lek yang koy agressé parce que nak joxoo leen pour ñu mën a résistant kon nak suñu waxtaan tey lii mooy le processus de la maladie processus dina la maladie nag dañ koy gérer nit bo bëgg am wér-gu-yaram koy sam wér-gu-yaram koy sam da koy toppatoor dañ koy entretenir comme ñu entretenir ben auto kon nak sen bok sen xarit monsieur Barji docteur Badji man maa ñëwaat ci numéro bi di len fatali di len yee ci li nga moy ci si fièvre di len wax ni nañ joxante rendez-vous dig dajé si semaine bi di ñëw inshallah ñu bu ko défé ñu waxtaan si benen numéro bi nga xam mom moy diabète feebar bi ma bëgg ñu waxtaan bi di ñëw mooy jabet nangeen ngeen eh, samp seen baaraam foofu ngeen xaar ba ma ñëwaat jabet la ñuy waxtaan lan mooy jabet lan mooy indi jabet lal mooy tax nit am jabet te lan moo koy saafara lan mooy conséquence bi ak lan mooy solution bi di ngeen wax ni asalaamualeykum bu leen fàttee abonné aussi wa rahmatullahi wa